Eh, waaleykum salaam wa rahmatullah eh, ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg taan ak wér di siyaare sunu jëwriñ sëriñ Yafi Bousso al imam eh, mu mel ne tey jii ñoo ngi fii ci jumaay Touba taxaw ak sunu kilifa gi nga xam ne mooy sëriñ Fallou Mbacké sëriñ Fallou Touba mi nga xam ne mooy ki jiite commission organisation fii ci jumaa ji mu dalal nag gan yu am solo yoo xam ne maanaam tey jii ñoo fi ñëwoon seet si jumaa ji. ngir indi seen addiya seen participation ci bis bi nga xam ne mooy bisu Cheikhul Khadim bi euh, ñu ngi taxaw nag directeur Dieye bi nga xam ne moo jiite encense bi fii ci Touba muy PAMECAS bi euh, ànd ak yenn kilifa tam yu bàyyi ko ba soowu ñëw naka jekk tam nii leen ko defee nii lañ ko defoon def nañ ko fi lu toll ci ñetti at yoo xam ne at mu ci ne bu ñëwee danañ indi maanaam ay jumtukaay yoo xam ne ay ay ay ay ay yu ñu mën a xéwloo ci jumaa ji muy ay basang ay saabu. Euh, ay eau de ay ndox yoo xam ne tamit dana mën a taxaw gan yi fii ñëw kon xam naa ko waxtu yu jege si na dañuy bàyyi rek jéey euh, mu présenté leen bu ko defee jox kàddu gi nag sëñ bi waaw. asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant Serigne tuba jaraamaal maam Cheikh Fall ñu ngi nuyu waa Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ne mooy daara bi nekk ci jumaa tuba di am mbégte tew fren comme ñu ko defee woon daaw ñëwoon fi nag ci turu PAMECAS bi nga xamante ni réseau mutuel d'épargne et de crédit la nga xamante ni am na échelle nationale ñu ñëw ànd ak sunu waa direction général nga xamante ni eh, ki ko jiite mooy ay Aïssatou Seck ànd ak aussi ku ñuy wax Ousmane Doy ak sunu waa direction eh, bu Thiès nga xamante ni directeur bi mooy Alioune Koundoul ànd ak aussi chef eh, le président bu bu su Touba ñu tuddee ko Moustapha Gueye donc dañu ñëwoon rek sunu addiya ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ñoom mbégte lool teew fi donc di jox kàddu gi aussi kilifa yi nga xam ne mooy kilifa ak gi muy sëñ Moustapha Guèye. alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sëriñ Touba sëriñ Touba def sëriñ Touba waaw ni ko sëñ Assane waxee eh, teg ci signal yu jeey waaw ñun PAMECAS dañoo ñëw ci waajtaayu màggal gi fas yéene nañ ko daan defee saasu ne jëfe ndigalu sëriñ Touba ci santale ko sunu borom ci bis bi ah xëy na di ci indi sunuy barkeelu diggante ndox satala basang kotol ak eau de javel eh, li ñu indi tamit ñu xeeb ko lool di ñaan sunu borom mu dolli ñu tawféex bañ mën koo gën a jekku fekk si daayira tul di nga xatuk xidma sëñ ñëw di ko siyaar di ko jaajëfal ko jébbal sunuy barkeelu di ko wax tamit ci turam me ko pamekaas ànd bi ñu ànd ak bi ni nga bëgg a am ay fan ñu fas kemt ko tàmbale ñu ngi ciy gis tawfeex ci côté xëy on ñëw sant leen xamal leen ñu ngi toll ci euh, fii ñu toll ci ci ci liggéey bi wax dëgg yàlla mi ngi gën a kawe ah ñu fas yéene tamit wax dëgg yàlla jëflante fexe ba népp nu ñu mën a jàppe liggéey bi liggéey ci jumaa ji gën a yokk di taal seen xalaat délégation bi jóge direction générale looloo tax euh, ñu jóge direction Thiès tamit looloo tax mu ñëw mooy nan la ñuy fexee ba ni ñuy jëlee gën a kawe gën a moxtaale ba taalibe yi gis ci seen bopp ba mën a jàpp ci liggéey bi ñuy liggéey ci jumaa ji mu kawe lool asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah yéen waa Pamecas ñu ngi leen di nuyu ci turu Sëriñ Aatu so mi nga xam ne moo jiite daayira Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne mooy taxawu jumaay Tuubaa ci diggu sëriñ bi di teg nuyoo ci loxo Sëriñ Musaa Gey mi nga xam ne moo jiite mbooloo bi fi ñëw mu jàll ci mbooloo direction bépp rek ak pacc bu ci nit mën a yor rawatina ñi nekk fii ci Tuubaa dëkk ak ñun ñu sant bu baax jëf ju ji def ngeen ko ñëw fii indi seen participation waaye doon def ko defin Pastef te mooy yéen ñëpp ngeen àndandoo ñëw ngir feeñal seen yéene waaye itam jox ko yitte ba mu ñëpp ngeen bàyyi seen yitte ndax mënoon ngeen koo yónni kenn mu indi ko waaye am ngeen am cofeel moo tax ngeen àndandoo ñëwandoo li ngeen indi tam nag rëy na ñun loolu tam nag ndax ñun yégg gi rek moo ñu ëpp solo. te day mel yëg ngeen li ñuy def kon nag ñoo ngi ñaan parce que suñu tool bi tax ngeen di ko jëf ngeen daje ci lu kawe seen njort ba lii ngeen di jëf am am njëkk li ngeen def a man te yàgg nañ yàgg ànd parce que sëriñ bi jërë jëf xam naa kàddu yooyu rek mooy yiñ fi indi ñoom nag sëñ bi man mën naa leen a seetal ndax. waa daayira bi sax jóg nañ ba dem foofa ci encense ba sëñ Abdou Lahad Muxtaar moom egg nañ fa waxtaan ak directeur mi ci lu yàgg ñuy ñuy ñoom ñi ñuy gën a fësal seen yéene ba plateforme yu bees yi nga xam sax ñu ngi koy ñu ngi koy séentu ca kanam nga xam day mel ne mel ne lëkkale maanaam lu mel ne Orange Money ak Wave yooyu yëpp ñu ngi ciy xalaat ñu mën a gën a yaatale jàppale li daayira bi waaw ñoom daal ñu gën leen a doole ñaanal xam ne daal lii moom boole nañ ko ci seen yitte kon nag yàlla même fa yàlla leen fay fii nag moom sëñ Fallou ñoom yi dañ koy wax ku fi dir jàmm te it bàq bu tooy la te it fii la diggee nag ku ci feeñ da feeñ seen jëf moom sëñ bi di nangu na ko <laughs>